الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف عباد الله وآله وصحبه وأمواله من لدني نيو بو خامي نيو نيان يالا مو نيك نيو بو خامي نيو تالال لا مو وي ديفيلاس يالا ديكو جوتالي ادنا بييب مو نيك لي صاح سي بيب جامو بو خامي نيك ñu jëriñu nag ci wax bi jaare ko ci jotaay bi tàmbalee ko ci jotaay bi yéen a ko fekkee ak ñi nga xam ne ñoo koy seetaan ci direct bi ak ñi nga xam ne ñoo koy seetaan après di ñaan sama am def ci barke te mu bindal ñu ci tuyaaba dafay ñu si aw yiw te fay ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nga xam am njàngaleem dañuy jëfandikoo tey li fekk ñu ngi koy W li feet ñu ngi fi sax ñu ngi ko déglu te bis bu ñu demee ba si jëmm xeetu yi ñu faatu yàlla na ko yàlla boole ci ñi nga xam ne yàlla da koy boole ci jëf yi ñu nangul kon démb ñu yemoon ci wajlis ala al ardi wala taqul maahu ala al firaashi in daa li tawsia إلا لضرورة ومتى جاء الطعام جاء الطعام إليكما أو الشراب يا غلام فلا تكن سابقه له أبد بل أمره فيه انتظر ذاك رشد نيا مونتي نندي جفل أنتك مك سابو خمين يالا يمنال يمنال نلنتي أبجد هاي ولا ينعند تكي ولا ينمر كون نيجي جفل أنتك مك ci li nga xam ne mooy teggini lislaam ci teggini lislaam yi nga xam ne mooy teggini démb yi teggini nag maanaam bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoo di saxaaba yi ridwanullah alayhim ajmain borom bi subhanahu wa taala tàgg tàgg na leen ci alquran wa yuusiruuna wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa mi ngi tàgg borom jikko yu kaw yooyu bàyyi seen téléphone bi bañ jàng ñu ngi tàgg borom jikko yu kaw yooyu nga xam ne dañu yor dara loo xam ne ñoom aaje woo woon nañ ko lool soxla ko lool yittewoo ko lool waaye ñu gis keneen ku ko soxla ñu jàpp ne mën naa kooku gën leen koo soxla ñoom ñu joxe ko te ñàkk loolu wuteeg seen jikko gis naa léeg-léeg ak pizza rek bu ngeen koy séddoo séddoo séddoo kuñ joxu dagg rek da nga koy yemale sa bopp yottali sax du ngeen ko def loolu nag du ñu koy jullit la joxee kaas dangay jottali maanaam bu ñu doon séddale dara dangay jottali nga xam ne yow loolu ñu ngi ci jublu bu ñàkk de am yow nga ñàkk kenn ku nekk ba nangoo ñàkk bu boobaa mooy nekk loo xam ne li alxuraan di wax ko yuusiruuna ala anfusihim waaye bu kenn ku nekk ne man maay am te faaw kon amul ñoo xam ne da mënuñoo ñàkk-ñàkk kon bu boobaa égoïsme day daal dugg te alxuraan bokk na ci li nga xam ne daf koy xeex muy li nga xam ne égoïsme boo xam ne bu négatif la boo xam ne nit ki daf koo jëmale ci boppam wa yuuthiruuna alaa anfusihim wa kaana bihim xasaasa léegi nag comme niñ ko waxee woon démb l'islam bu ne yow ndaw li fonkal mag ñi ba nga xam ne danga koy teg ci kaw def ko ne sa buur loo am jox ko lu mu la gën a bëgg bàyyee ko bu juumee suturaal ko bu toogee ci kaw toogal ci suuf bu dee benn tëddukaay tëddal ci suuf bu dee lekk bàyyee ko ñam gën a baax bu fekkoon ne fa mu doon xoromoo de mooy ne loolu daf ko wutalu àpp ndax ne kon bu boobaa xale yi dañuy wala kum fekkul nga màgg lislaam bu koy wax day wax loo xam ne day am ak continuité muy dangay nekk xale di ko defal mag ñi ëllëg yàlla suturaal nga dem ba nekk mag soo nekkee mag xale ya nga xam ne ñoo fekke sa jamono ñoom it la ko defal nga dem ba mu jàng ba jóge xale ya la ko doon defal ñu nekk mag yeneen xale ko kon nekk loo xam ne fayante lay doon waaye bu ci am yëg-yëgu ne man xale laa kon dafa mel ne daal man lislaam li mu bëgg rek mooy toujours lu baax bi dama koy joxe ko lu moom dañ ma koy bàyyi déedéet dafa bëgg nga wormaal mag ngir ëllëg boo nekkee mag danga koy soxla te lislaam xam na mag lu muy soxla te yow xamagoo ko mu ne la nag kon wormaalal mag ngir ëllëg ñu mën laa wormaal dafa am ay euh, maanaam ay caractère yoo xam ne ci mag dong lay nekk boo dee xale day am ay émotion yoo xam ne ci mag dong lay nekk boo dee xale doo ko am dafa am ay bëgg-bëgg ay jagleel yoo xam ne ci mag dong lay nekk boo dee xale doo ko am waaye bu fekkee ne doyloo la njàngale lislaam yooyu da nga koy bàyyi xel mu ne bu ngeen bokkee lekk yi la sa gën a baax na nga ko ko bàyyee ngir woor maa ko lii nag boo ko deful ba xam ne dangay am bàkkaar déedéet doo am bàkkaar waaye nag mën nañ laa tuddee koo xam ne ay tegginam rafetul rekk lañ lay tuddee waaye nag du nekk loo xam ne dañ ci am bàkkaar ndax boo xoolee fi mu ne nii comme ni ñuy comporté woo yu bëree bëri da ngay gis ne mën naa gën a rafet doonte baax na du bàkkaar waaye nag maanaam dañoo bëgg société bi gën a dund ci dund boo xam ne dund bu dal bu tey lay doon mu ne boo nekkee mag wax minhu fi jamii ma yaxtaaju ilayhi tuquda laka baadul xaaju mu ne boo nekkee mag soxla su ma am nan ko ko defal nan ko ko fajal mu ne yónnee na nga dem boo amee soxla xaalis te nga am ko si sa poche may ko ko te yàlla tax boo amee benn yitte fajal ko ko te yàlla tax su la bëggee yónni demal te yàlla tax boo gisee mu ŋàbbalu diis ŋàbbal ko ko te yàlla tax boo gisee mu yor bant di dox ndànk nga dab ko te yàkkamtiwoo àndal ak moom gunge ko waxtaan moom te yàlla tax loolu lépp nga def ko Sëriñ Tuubaa nee na boo dee bàyyi xel mag def ko buur fonko teral ko wormaal ko li yàlla da faj say aajo moo taxoon benn boroom xam-xam bo xamne mom lañuy wax Abdul Halim Mahmoud fana ci Égypte dafa mas dem France ben invitation def fa diggante démé mu demee Égypte dana leen raaytu france akhlaq al muslimina bila bila islam ورأيت في بلادنا هذه مسلمين بلا أخلاق لماذا دمي فرنس بما دمي أوروب جسنا فا خونا فرنسي أوروب من سمعنا فرنسا ويا أوروب لون فرنس جيمون باخد جيمون باخد مون آه ويا من جسنا أشي أوروب أي جيكو جلد تجلس ما في أي جلد ويا ما جس شيء ما جس شيء في شيء سمريو أي جلد تجلس ما سين جيكو bu doon Amérique moom danaa ko nangu moom waaw moom wax dëgg yàlla sa dëgg dëgg dëgg dëgg bu fekkee ne maanaam une manière générale la ñuy la ñuy la ñuy wax ci li nga xam ne fës la suñu xam-xam yam li gën a fës rek doonte nag nit ñi ñooy nekk léeg-léeg di jël yi gën a néew di ca baasewu bi ca àttewu ba ñaawal ko waaye xam nga di dund mën a jógee fii sol mu muñul kuk kol muuru nekk loolu di ko dund ay at di dox ci diggante daara ji ak feneen ak feneen ay at te mosoo dégg benn violence loolu dëkk bu am jàmm rek moo ko mën a xam te yàlla mi amul kum ko xam ne sama mbubb mii ma ma nekkoon Égypte sol amul benn fan bu may génn te du ma bu ma solee seen col bu ma génnee ñu ma dangaa ñuul dangaa ñuul si jar wax nit mm-hmm. maa ngi bëgg a sax <laughs> dégg nga maanaam li ma bëgg a wax mooy jikko jikkoy mag mag ni ñu warmaalee mag laa bëggoon wax ba génn kii fii ñu gën a warmaal mag ci jullit ci jullit ñi fii lañu warmaal mag boo xoolee seen bus yi dañuy bàyyi xel bu dee mag bu dee handicapé ñoo gën a warmaal doomu aadama ci seen terrain yi ñoo gën a warmaal doomu aadama ci fépp foo xam ne da ngay dem di maanaam fu ay nit di nekk ba ci élection yi gis nga ne mag ñi dañuy dikk rek romb la na naqari ndax boo demee ba nekk mag it loolu lañ lay cëralee alhamdulilah lool nag loolu ci lëkk yi nga xam ne ñooy dëkk junni yi bari ñoom melo amuñu melokaan boobu yi wala sax li gën a yéemeeti mooy amul rang maanaam ku gën a rafet lim bu da ngay di romb ñëpp woo nga téléphone teg si nga message diw sàngam yi ñëw ñu nga dikk romb la di jënd seen soxla yow nga dikk hôpital ba ci fajar nekk fa ba tàkkusaan benn waaye nelaw nelaw bu 10 heures pile bi ne ko accident mu taalub otoom ñëw romb la yow fajar nga fa xëy si woon wala deux heures de matin daal dikk loolu moom maanaam jagut maanaam boo ko mën def bu dee alal la ko may ak mooy yàlla la ko la ko mën di may rek baaxul parce que war ngaa war doomu aadama yi euh, loo xam ne maanaam mel na ñëpp daal bu mënee nekk waaye réew mi nag lay defar lay doon kon mën na ngay na ngay mag te na nga koy fajal aajoom yàlla faj say aajo waxee suma saaxabte xawman fii safarin fa kun ñu ay namu ala kulli watan bu dee da ngay tukki ànd ak comme femme bi nga xam ne léeg-léeg mu tukki sorti mu ne na nga leen na leen di liggéeyal da euh, ngaa ànd ak yéen da ngay na am trip da na tukki da na dem màkka aj màkka dégg nga xam ne yeneen nit ñi dañoo tukki mu ne na leen liggéeyal فكن معينهم على كل وطر كي بيب حاجة بو خمنا مهم لنا بيهم مثال خمنا تو كده فمات بو دي جن دا عنا كي مكتوب كي نكي لما نتا يال خير لنا كده مكة ندو كي سمان نيدي صون دي يور أي ساك دي نيجي نركل جي نيوم بيب أي سيريس عمنا نيو خمنا بن نيوم مكة دي سان لور لن فين يكي عمنا نيوم بن يو بالي كاش مدوي بن دي مي كون جيس نو عم پروبلم يمي دا خالص بنوبل بولي دي لن ليجي دي لن جيل سيني بغاس دي لن دي تنجل دي لن عبل سيني ساك ñoom moom dañuy am fay aj ba noppi am fayu liggéeyal doomu aadama di sëñ Tuubaa na ci message ko dinaa ne bu ëllëgee yowmal xiyaam ñi nga xam ne dañoo dëkkoo woon di jariñ nit ñi di leen dimbalee dafa am kàddu gu xumb gu foor boo xam ne day woote ne ana ñi nga xam ne ñoo daal liggéeyal jullit ñi ñu daal di tontu ñoom ñëpp kenn maa ngi buñ tontee ñu daal ne leen aywa dugg leen àjjana yéen moom kenn du leen xisaab kon liggéeyal ab jullit lu am solo la kon mu ne na nga leen liggéeyal te nga sàmm seeni bagage maanaam bu fekkee dangaa ànd ak nit tukki ñu jekki-jekki nelaw te yow nelawoo ku nar jël seeni bagage na nga jël ne sa bagage lañ war a jël moom lañ nar a sàcc maanaam na nga xeex tegal moom moo waaye toog rek naan da jaay ak maandu aha déedéet loolu mën naa nekk jikko tubaab waaye du jikko jullit ci yooyu la mbir kon bu fekkee dangaa gis koo xam ne da nga koy da nga koy da nga koy eh, da nga koy maanaam da maanaam da ngeen a ànd tukki nga gis nar a jël ay yëfam bu boobaa na la jaral xeex na nga arrêté loolee bu kenn jël ay bagaasam da ngeen a ànd tukki na ko gardeel ay yëfam da ngeen a ànd tukki loo mën dimbalee rek loo xam ne yaa ko tanee rek dara jël la xeet bu ngeen bokkee néeg aussi comme noonu bu ngeen bokkee néeg waaw mu ngi léeg mu nekk ko sàggat ba doy waaye jéem ko soppi dànk-dànk te xam ne tukki yàggul moo tax wala fi naan nit bala nga koo xam dëgg dëgg dëgg da ngeen a ànd tukki ngeen àndee tukki rek ngay xam jikkoom kii ko salte la ko yaw la ko civilisé la ko téxal la ko xay la ko xayadi la yooyu yëpp fa nga koy xam ku mën a yàq la ko bari diital la ku ragal yàlla ku ñeme yàlla la yooyu yëpp fa nga koy kon mu ngeen àndee tukki da xam ci nit ki boo àndee moom tukki da xam ci moom bàyyi princesse You're gonna finish the garden or you take it home when you finish. Okay? ok eh, mu ne boo ànd ak ay nit tukki na nga leen di dimbale wansur jamiahum bi mastataata walahum walahum mutidar walahum mutadir ida xafarta mu ne boo àndee kii nit loo loolu mën a dimbale rek na nga leen dimbale waaye saa boo xamee ne dafa am benn rëcc-rëcc bu am na nga leen baal mhm. kon mu ne bu fekkee ne da ngaa ànd nit maanaam di tukki na ko dimbale te bañ a bàyyi nit te bañ a nekk nit ku tàyyeel jamono bu nekk rek nga nekk koo xam ne dangay xool seeni bagage di leen bàyyi xel di leen taxaw bu baax a baax sëñ bi waaw ne bu fekkee ne da bëgg am ak yëkkatiku wala dangaa bëgg a am ak kawe wala dangaa bëgg am cër bu mu ne faaw nga sonn keroog maa ngi leen di wax nee naa leen euh, ab coono mooy jur baax ku bëgg lu rafet da ngay sonn ku bëgg lu baax da ngay nangoo liggéey ku bëgg lu rafet da ngay sonn ku bëgg lu baax da ngay nangoo liggéey waaw mboolem. li ñuy jëfandikoo ci àdduna bi ci wàllu àdduna muy loo xam ne dañu fonk la ñëpp bëgg ko yëpp ab coono ko liggéey coono bu metti waaw parce que suñ téléphone yi ñuy utiliser nga xam ne matériel bi ñu def nañ ko ci dégg nga ab coono bu méttee méttee méttee méttee métti lañ ci def moo tax nga mën koo jëfandikoo muy yomb fekk am na ñu la ci sonnal waaye yow coono bañ ci def pour nga mën koo jëfandikoo yow ku la ko tegoon nga gedd téléphone am na am na loo xam ne moom lañ ciy def Euh, produit boo xam ne moom la ñuy mooy tax batterie bi du la lakk mooy tax batterie bi du lakk téléphone bi mooy tax du tàkk day protéger téléphone bi ñu ngi koy gasee ci africain yi daanaka comme ni gasee jamaa dañ koy gasee ah ay ay ay mine lay yoo xam dañ koy gas dugg ci biir suuf dem ba yegg fu sori pour am produit boobu mu nekk benn xeet suuf boo xam ne suuf bu ñuul lay doon mais suuf bi day xaw a mel na ab dóom maanaam bu fekkoon ne tey ji danga ko def ci ndox tooyal ko boo ko defee sa làmmiñ man na ko lakk mais buñ ko jëlee defar ko boole ko batterie bi day boo day protéger acide bi courant bi nga xam ne moo nekk ci batterie bi mooy tere batterie bi explosé ci biir téléphone beeg yu ni mel su ko manqué nag léeg-léeg batterie bi léeg te loolu cher la loo xam ne ci dëkki africain yi lañ koy jëlee exemple bi ma lay jox rek te loolu bokkut ak technique bi ciy dem bokkut ak design bi bokkut bi bokkut ak installation bi bokkut ak software bi dem ci biir dégg nga bokkut ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne moom moom mooy composé téléphone bi yooyu yëpp pour nga mën koo jariñoo kon ab coono bu rëy rëy moom mooy jur lu baax nit ki noonu boo bëggee mokkal alxuraan waaw boo bëggee mokkal alxuraan dina mu woo sonn impossible mënta nekk parce que mokkal alxuraan lu rëy la lu neex la soo xam ne soo ko defee ñëpp ñoo lay bëgg dañ lay bëgg da ngay sopp xool leen ki faatu ci fan yi rek àdduna bi yëpp ndeysaan yëgandoo ko di ko metti ni waaye ji nekk te 82 la judd xale la sax 82 la judd 38 ans waaw 38 ans waaw mokkal alxuraan mais dafa sonn 96 rek la mokkal alxuraan mais coona kon Sëriñ Tuubaa nee na lu baax moom ak yëkkati ko ak tedd na mënoo ko am ci lu dangay sonn kon nit ki faaw mu nango sonu ngir am lu bax dégg nga nangoo ngir am lu bax nango am lu rafet ngir euh, ngir manam nango am bëgg am lu rafet dang koy teg ci coono waaw maanaam coono bi ngay def moy jur resultat bu bax moy jur resultat bu rafet ngay concentré woo ni ngay liggéeyee euh, ni ngay dégloo bu dee daara ji exemple la joxe misal not sa bakkan bi bañ bëgg lekk bañ bari def plasma tok ben place not sa bakkan yar sa bopp dégg ndigalal ki lay jàngal bëgg nu ko neex dégg nga yoy ay mbir la yoo xam tagatu la jema xarito xaritoo ba déggoo moom mu teg la ci yoon lolu ak tagatu la ngoo xamne faaw nga xex sa bakkan do ko mën am parce que ci lolu la mokal alcorane bi jaar mokal alcorane moom day bañ beru manam melna ko xamne da ne beru sa bop rek mokkal alxuraan jombul am nañu ko yalla may waaye yombul yombul maanaam quatre vingt dix pour cent yi dañuy am sëriñ bu leen teg ci yoon di leen jàngat di leen tàggat di leen wax def leen nii ñu kii nii maanaam kon mu ne yëgal na lu baax daal wala ak kaay wala ak yëkkati faaw ak coono moom moo ko ni ki doon jigéen joo xam ne day dafa bëgg lu baax ci ab sëyam faaw mu sonn dégg nga sonn gi nag du culture yëpp it ci wàllu sëy lu culture yëpp ñoo bokk ni ñuy sonnee misaal xam nga fii kenn la yan am fóot nga yan ko dem ci mbedd ma di sumb di fóot di bàcc xam nga loolu amu fi amu fi Sénégal la fa am loolu mooy seen coono fii li fi am mooy seen coono kon dëkk bu nekk rek kenn ne kenn nañu sonnee nga def la gën a dëppoo coono ba ngir am lu baax maanaam loolu mooy maye lu baax kon nit lépp lu muy def bu bëggee lu baax tàmbalee ko ci àjjana ji nga xam ne moom nga bëgg ki di nelaw di yeewu rek am àjjana mënta nekk xaalis boo liggéey si yow rek la yem nga am ca aajana mënta nekk dégg nga julli du ma julli waxtu juróom du ma sonn du ma naaf la guddi du ma def dara lu baax nga am ci àjjana du ma saraxe nga am ci àjjana mënta boo xoolee àjjana lépp sacrifice la mettit la ak coono moo tax bu ngeen xoolee Sëriñ Tuubaa nee na waalam bi anna al majda laa yunaal illaa bi qadri kadri fi ma xaalu moo tax waxoon na keroog ne dégg nga xuffati naaru xuffati naaru bi shahawaati wa huffatil jannatu min makaari nee safara moom di ko wër ay bànneex dong la safara di ko wër ay bànneex la waxu la da ngay dem ba safara gis bànneex yi nekk fa déedéet da ne maanaam topp sa bànneex daal mooy tax a dugg safara waaye àjjana di ko wër yëpp ay metti la ak i naqar moo tax moo loolu mooy eh, topp maanaam nangoo muñ metti ak naqar ndagate mooy maye àjjana waaye mooy maye lu baax ba ci àjjana yi àdduna sax sonn moo koy moo koy Hmm. manam bu ko jëlee misal ci bi may jamm eh, euh eh, manam ma leen waxee toll so ay jamono yoo xam ne su ma sangoo korite wala tabaski danga naan déedéet dund na ko toll naa ay eh, jamono yoo xam ne man na ma bolé ay palaati ñam yu bari yu mat fukk yu bokkul jaxase len lek toll ay jamono soli dal nga soli dal di tumuranke dégg nga yooyu yëpp dund ko tool naa ay yoo xam ne damay dem tool di sonn di bay loolu lépp moo ñu may teraanga ji nekk tey te ñu sant yàlla te xeebuñu te xeebuñu kon waaye fu nekk rek ak la fay ab coono la fay ab coono maanaam coono Amérique mooy noosu noosu noosu Sénégal yéen seen daara ñi bu fa andi woon dongam Sénégal dongam jóge Touba ngeen di ko fi pare lay jàpp dafa nekk sëñ Abdou Mène dóoru xam ne dara wute naa daare si si kon mu nekk bu fekkee kenn dafa sàkku ci yow dara dara loo xam ne am nga misaal alal wala muy sàkku ndimbal wala muy sàkku dund wala sedd bi dikk amul jaket bu mu sol ñaan la jacket nga am ko wala amul kawas ñaan la kawas nga am ko wala léeg-léeg nga gis gan ngoo xam ne day door a ñëw li war a am amagu ko yow xam nga dëkk bi xam ne baa ngi gis nga ne ni muy baaxul gis nga am jacket ci kër ga xam ne jot na fóot ko ba mu set nga parfum ko ba mu neex boole ko vingt cinq dollars wala quarante dollars dikk na ko am jox ko te yàlla tax waaw loolu mooy dimbale wante surtout nag bu fekkee ne doomu aadama mag mi moo sàkku ci yow loolu mag da ko sàkku ci yow hmm? hmm? mu ne nag bu nekk am nay am nay nay waaw bu nekk am nay nay baaxul nay baaxul mu ne àdduna bi nay nay baaxul da mooy nay nay mooy koo xam ne day am lu mu mën a joxe te yàlla tax mais du ko nangoo joxe te yàlla tax koo xam ne day am lu mu mën a dimbalee doomu aadama waaye joxe ko ak ku ko rey la yemal nay day yóbbu nit ki ci ay warteefam sax da koy bàyyi nay day yóbbu nit ki ci saa bu ñuy wootee ci def lu baax te yàlla tax da koy rëcc ndax day dig digal di xalaat di waaj ba occasion boobu rëcc ko nay day tax nit ki du dimbale woy juróom nay day tax nit ki du dimbale ay mbokkam nay day tax nit ki da saraxe nay day tax nit ki lépp loo xam ne occasion bu baax la bu mën a amee àjjana dana ko romb nay day tax nit ñi suñu wootee lu baax te lay nekk naan di bari question di laaj di laaj ba opportunité boobu romb ko te kuy def gaal bu la jël romb gaal bu la romb ñu ne àjjana la jëm nga yóbbu fa sab yóbbante nga dugal fa sab yóbbante wallaay léegi tey nga bari la ay yóbbante yu dem àjjana waaye la jëm nga ne ah boo yeexee day naxee day dóor rek gaa yi dem àjjana danañ la romb ba dem yow nga toog fi moom ndax daal gaa yi dañoo ñëwagul dem waaw dañoo ñëwagul gaa yi dañoo bàyyi romb sa ngay nekk waaw kon nay baaxut yàlla nañu si yàlla musal yàlla nañu yàlla musal ak nay ñun mm, safaanu nay mooy tabe tabe tabe jikko ju baax la ab jullit bu tabee euh, ak jaamu yàllaam dañuy gën a nangu ci jaamu yàlla ak jullit bu bu tabe ak jaamu yàlla am dañuy gën a nangu ci jullit bu nay yàlla ñu si yàlla musal am na ay borom xam-xam sax nee nañ yéefar bu nay sax bu dugg safara am nañ dem ba yegg foofu donte wax la joo xam ne man nañ koo bañ a nangu topp waaye maanaam daal tabe am solo la hmm? yéefar bu yéefar bu tabe ah damaa jum kon am nañu ne yéefar bu tawee ñu dugg ñu dugg safara am nañu ne yéefar bu tawee ñu dugg safara. lan mooy différence bi nay ak baax amin tabe ak baax différence. bokkuñu tabe xeet la ci xeetu baax baax daa yaatu tabe benn tur la rek ci xeetu baax baax daa yaatu dafa bari ay façon baax mooy lay sal birru tabe mooy ku mën joxe. Hmm? mën a joxe lu leew te moom moom ko janewis waaw li saa ci joxe janewis oustaz nga yëfal ko tamit am nañu ko wax is it true am nañu ko wax nag ok baax baax yàlla définir na ko si alxuraan yoon yu bari dégg nga laysa birru an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر دقل والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا ولكن يتقون يلا أننا na ببريك lim باخ باخ دفع بريك أي فصل دفع بريك أي فصل yemuñ ci julli ak woor rek yàlla neen yemuñ ci julli ak woor waaye mooy nga gëm yàlla gëm yowmal xiyaam nangoo julli nangoo joxe asaka wa xaam saatu ata zakaata nangoo matal kóllëre nangoo matal kóllëre maanaam sàmm say promesse dégg nangoo muñ lu naqare ak lu neex ci jamono bu metti ak jamono boo xam ne jamono bu yomb la yooyu yëpp ci xeeti mbaax la nangoo joxe ci xeeti mbaax la aussi kon bokkuñu wolof nag mooy def ku nangoo joxe mu ne ak xam naa xam maanaam kon maanaam suñu réew ma ngay gis ab joxekat boo xam ne day dóor di joxe loolu du tabe du baax day dóor di joxe maanaam day trian alal nit bi ca tamit feneen waaw maa mën naa dem Gàmbi ndax fa ay million mais bu dikke da koy nango joxe loolu du tabe de tabe moy yow ya liggéey sa ala di nax ko mom ko calculé wo looy am calculé wo bu do fi dess da nang ko joxe te yalla tax saa boo gisee jullit boo soxla na sa yoon nekkul ci lu ngeen bokk mais danga koy dimbale wala nga def ci la nga man te yalla tax waaye na nga yemale ko nag nga yemale mu bañ a nekk joxe ñu dox ñu joxe rek ndax yàlla nee na wala tabsutaa kullal basti fa taquda mazmuman maxdura bul tab bul tabe tabe boo xam ne dangay joxe joxe joxe ba mujj gi nga mujj di yedd sa bopp di mere ko la defut dara waaw yàlla nee na bul tabe tabe boo xam ne dangay joxe loo yore joxe ko ba mujj gi nga mere sa bopp su soxna dikkee na la ana ah, dépasse bi nga la joxe ko déedéet bu boobaa nag yaa ko jox joxe naa ko yaa ko sa doom yi xëy ne la dañuy jangi pass ne la joxe na ko deug dégg lolu manam bax la lolu xetu bax la waye kenn diggalu la faaw nga dessal ci keur gi daal motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da wax sax bo amé alal bu fekkee na dang ko bëgg mayé ci yoonu yàlla sañoo mayé lu ëpp ceer sañoo mayé lu ëpp ceer ceer mooy la ci anglais wonte hmm? waaw sañoo mayé lu ëpp ceer waaw loolu am na xadis am na ko di kon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ci laaj dafa bëgg a maye alalam yëpp mu ne ko mukk ëpp naa def mu ne ko kon ma maye xaaj bi mu ne ko déedéet ëpp naa def nga am njaboot mu ne ko kon ma maye ceer bi mu ne ko waa baax na de waaye bari na sax de waaw bari na kon xaaji ceer bi xanaa kon mooy baax te la ko bëggoon a maye ci yoonu yàlla rek dégg nga mas na may wax fii am ku ma dab ne ma xeetu ne ma xam naa sax jullit waaye xëy na kaa bi arrivé na ko wala dafa am koo xam ne li muy faatu dafay bàyyi hundred thousand dollars mm. ne ma ay julli lañ mais dafa woon nañ ko defal ci yoonu yàlla te doom yi dañ ko dañ ko yitte woon nee nañ ñuy laaj ma ne ko nañ ko lekk nañ ko jël nañ ko jël suñ ko jëlee nag ku nekk nga xool loo ci mën a saraxeel sa papa nga saraxeel ko ko waaw wala suñ mënee it ñu xaaj ko nag xaaj yi jël xaaj jëlee ko ci yéen ñaari xaaj yi ah, nay baaxut waaw tabe ci loo moom tabe ci loo moom loolu ak sàcc la waaw dégg nga ndax ne euh, dëgg-dëgg nay nag dëgg na nay mooy nga dégg ñu ne muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te waxoo sallallahu alayhi wa kooku mooy dëgg-dëgg nañ ndax ku nanguut jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku loolu nangu koy jox keneen kon bokk na ci li nga xam ne dakate day day def ci xol nit ci ak ngay ñàkk jub ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salawaatullah salaamu alayhi ah kon mu ne ku nay lan moo koy dal nee na ku nay day sori yàlla ku nay day sori yàlla loolu mooy loolu ku nay day sori yàlla te day sori nit ñi yàlla bëggul ku nay nit ñi it bëgguñu ku nay nit ñi it bëgguñu ku nay tey jii bu ngeen doon laajte dara di ko dajale di ko def lu loo xam ne warteer la misaal ngeen ne weer bi dee nañ jël nàngam ngir jaamu ci yàlla mu am ci seen biir koo xam ne xam ngeen ne tëlewu ko waaye nanguwu ko def kooku seeni xol day soof ci seeni xol lool te caractère boobu da koy seetlu ci moom ba léppam sax du leen neexal waaw waaye mu ne ku nay day sori yàlla waaye day sori nit ñi waaye ku nay day jege safara day jege safara kon nag day jege safara ba noppi day sori àjjana hmm. misaal bi ñu ci mën a jël rek mooy joxe boo joxe te yàlla tax rek dafa am maanaam joxe boo joxe te yàlla tax ça ne pas si joxe rek la muy tolloon waaye neen sarax boo jël sarax boo jël rek bu jegee la dara ci àjjana sarax boo jël yàlla daggal la ab partie ci garab gi nga xam ne mooy garab àjjana ga sarax boo jël yàlla fanqal la ci benn musiba bindal la ci tuyaaba sarax boo def yàlla faral la ci ay bàkkaar sarax boo def yàlla faral la ci ay ndondok sarax boo def yàlla su ko neexee mu gën cee guddal saw fan sarax boo def yàlla bu ko neexee mu barkeel ci sa njaboot sarax boo def bu ko neexee mu yaatal sa wërsëg sarax boo def wa amma maa yanfau nnaasa fa yamkutu fil ardi yàlla nee na ki dàq jariñ nit ñi mooy gën a sax ci suuf saraxe lu baax la waaye sarax yëpp bi ci gën mooy di sarax nit ki ba noppi di ko wax lu ko neex soo amul loo ko jox wax ko lu ko neex moo gën sarax waaye ki yeyoo sarax di ko laajit na koy laaj laajin mu neex ñu jox ko ko neex waaye mel na waaja dem ci koo xam ne dafa saraxe ba noppi di ko yalwaan mu ne ko ah baal ma saraxe naa ba noppi mu ne ko wéy ji ngeen yor joxe leen ko yàlla da leen koo dénk rek mu ne ko xanaa yàlla da laa wóolu moo tax dénk la Was it good? Well done, yeah. Was the chocolate good? You like kon tabe tabe lo baax tabe lo baax waaye yal na jëkkër ju nay jëkkër ju nay moom dagal naa sàcc oh, jëkkër hmm. ju nay dagal naa sàcc maanaam bu fekkee ne la ko war ci yow defu la ko mën ngaa sàcc lu toll noonu waaye bu ko maa mën ngaa sàcc ci moom loo fayee sa benn oh. mën ngaa sàcc ci moom loo dundee donc mën ngaa sàcc sa moom loo dundee maanaam lépp loo xam ne moo ko war a def bañ la ko jox di xool sa alal sañ nga ko sàcc si moom boo ko jéem koo. koo moom it. Ah, nga xool noo ko lijjanti waaye dara nga da nga koy sàcc jéem a rëcc rek. Maguette Kole. ndeysaan yéen a ngi baax. salaamaaleykum. ñu ko yonent bi mënee xool. sallallahu alayhi wa sallam. Give me a water bottle, please. ndeysaan. thank you. dégg nga kon. mi ngi noonu. coono ñu delluwaat tuuti rek ci mbiru coono nag suñ da koo baamtu moo tax tarjumaan dañ koy bàyyi waaye nee na bi xabalee xet lu am solo la takk tasibul maali ومن طلب العلا سهل الليالي لا لام صبر ترون دبيد فوق الليل تروم المجد ثم تنال ليلا لقد أطمعت نفسك في المحال سيدي بعدين وأنك بقدر نعم، بقدر كد تكتسب المعالي ca kenn na nga sonnee noonu ngay tàggalikoo ak kawe lu toll ne la nga sonn loolu ngay am ci ak yëkkatiku lu ne la sonn loolu ngay ci ay xool ko ci àdduna ku la gën nangoo liggéey te gën laa mën a yaxanal moo lay ëpp alal moo lay ëpp alal am-am waaye nag niñ koy utiliser ak nañ koy jariñoo loolu beneen côté la moom loolu si jikko ji la moom. Hmm? ah dana ca kem nangay ngay sonnee noonu ngay amee ak kawe ca kem na ngay sonnee noonu ngay amee ak yëkkati ci sa kem ab coona na nga gën a sonnee noonu ngay gën a amee ay yëkkatiku ak ut ak i may ak njariñ ngay gën a jariñoo noo sonnee rek noonu ngay jariñoo ma joxe misaal ci àdduna bii kii dafa am ñaari liggéey am ñaari saleer waaye buy spend farata dong lay def ba noppi am plan bu baax xam fu mu jëm kooku bu ko yàlla dimbalee bu liggéeyee ñeenti ak juróomi at mën naa bañ a liggéeyee dati doomu aadama bu amee xel mu rafet ak dimbalee yàlla taxi dong boo koy dawal focus di liggéey te caaxaanoo ne ñeenti at laay liggéey farata dong laay def yàlla dimbali la amoo ay fere yu bare bari amoo ku la sonnal ngay liggéey di denc di liggéey bu baax yàlla dimbali la ci kàttanu xel yàlla dimbali la ci kàttanu décision ak détermination li yàlla bëgg a bindee baal na si lu kii moom wax nga yàlla dimbale la ci kàttanu xel xuwatu daakira détermination nga am ca kàttan décision nga am ca kàttan waaye nga am kàttanu yaram ndax kàttan yooyu bokkuñu yàlla dimbale la dimbale la incha allah boo liggéey diggante bu gàtt war ngaa mën a am li ci des nag léegi yan kàttan xam nga amoon nga kàttanu yaram pour liggéey doole mais est que am nga xaat kàttanu pour contrôler l'économiste est-ce que am nga kàttanu xel pour continuer pour pour toog xalaat pour def ay plan pour jéem a taxawal projet ba doo liggéeyee la fi kenn loolu beneen kàttan bi nga amee kàttan bi ba ne léegi nag bind naa sama agenda ci laa dox est-ce que am nga kàttanu li nga xam ne moom nga tëral ne ci lay ci laa dox décision bi ak détermination bi xool fa nga xam ne fa nga jëm te bañ a geestu est-ce que am nga kàttan boobu bu dee ku ne la yaa nga daw ne yow damay daanu da ngay dem ba mu jeex boo yéeg ci montagne danga naan cat la dafay laalu ma ko du ma laaj ah yaa am pas-pas yéeg ci montagne neen man feeg laalu ma jox waxtaan la du ma wàcc danga ne damay bëtt teen ndox du ma bàyyi dangay mel na dof ba ne woon day jëli yaa xóot ci ndoxi géej gi dem di ngacc rek ne dafa bëgg a ci géej gi ba mu jeex tàkk pour mu am per bi ñu koy laaj jën yaa mujj komp la wutal ko per yu bari <laughs> سمين توبا من ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا سهر الليالي أنا معقل سمين توبا لنا ومن طلب العلا سهر الليالي سمين فعل خمنا دار نانا أكبر بغ أك كاوي كو بغ يكتكو دالاي فوق غدي لان موي فوق غدي موي باña nelaw guddi musu leen ku bëgg am ak kawe ku bëgg réussite ku bëgg am ak yëkku ak yëkkatiku a nelaw guddi what you doing if night ku bëgg am ak yëkkatiku da ngay bañ nelaw guddi wa man talaba al oda ku kuy sàkku ku bëgg kuy sàkku ak kawe ak yëkkatiku da ngay nelaw guddi déedéet déedéet loolu mooy sleepless work ok bu nekk am nelawaan boo xam ne li li nga soxla ci nelaw lépp danga ko ko jox dangay nelaw tuuti dangay nelaw tuuti dangay wàññi say nelaw dangaa baax ak nelawoo juróom ñetti waxtu léegi xaaj ko def ko four hours wala 3 hours man toog naa ab jamono boo xam ne toog naa ab jamono boo xam ne tegale naa lu ma ñaari at du ma nelaw guddi kañ laay nelaw guddi suma ma suma jange ma jàngee damay jàng jàng ba fajar su ma jàngee ba fajar ma xëy dem université ba jóge fa ba jàng ba wàcc door dem tëri nga xam sometimes ay tàkkusaan laay tëdd wala diggante tisbaar ak tàkkusaan nelaw diggante bu gàtt daal di jóg ci leneen parce que am nga loo bëggoon te force nga am ko wa man talaba al-ulaa sahiiran layaali mu ne taruumul majda summa tanaalu laylan waaye waaye yow yaa ngi bëgg ak yëkkati ko yow yaa ngi bëgg ak kawe ba noppi di nelaw guddi ba yàndoo di biddanti yow yaa ngi bëgg lu baax ba noppi di biddal am naa dongo boo xam ne magum jëmm la onze heures lay war a jàng si bëccëg day biddal bi rek léegi su ko bu ko jotee nag mag du biddal bàyyi sa yaa muruka ma ne su tarumul maj la fu matanaa lay la yow nan ngay bëggee lu baax bëgg a mokkal alxuraan bëgg mokkal ay xadiis bëgg réussite waaye doo jëlal benn guddi dang koy nelaw bam jeex tak naayin la naayin nan ngay amee ak kawe yaa ngi bëgg ak yëkkati ba noppi di nelaw man talaba la wax la sahira la yàlla mo ne yow kon de li nga bëgg li nga foqale li nga bëgg yow da nga bëgg lu jom ah moy ku bëgg laal weer bi tanam nangu mu tëdd Even if you don't it's not you're not gonna Exactly. dégg ngeen bëgg naa weer bi dina mun ko waaw dina ko ci kaw mais bëgg naa weer waaw waaw kon soo bëggee lu ndeysaan ci tabe mu ne sa alal ji nga yor wala nay bu fekkee ne sa alal ji nga yor bu fekkee ne alal ji nga yor isa kaanatil amwaalu li tarki dañ koy dajale ngir alal ji ñu wut bu fekkee dañ koy dajale ngir bàkko fi nga am na alal yoo xam ne dajale woo ko ngir bàkko fi waaye alal ji ñu wut dañ koy dajale ñun ngir bàkko alal ji ngay lekk dajale woo ko fi ngir bàkko alal ji ngay def ci yoonu yàlla dajale woo ko fi ngir bàkko fi waaye alal ji ngay dajale pour mu nekk sa alal da nga koy dajale ngir bàkko fi alal ji ngay wut mu nekk sa alal alal jooju da nga koy dajale ngir bako fi ndax dee bàyyi ko mu ne bu dee mbir la demee di dajale alal yoo xam ne yow da nga koy dajale pour bàyyi mu ne kon nit kon nan lay nayee ci li nga xam ne moom daf ko ci li nga xam ne moom da ko fi démb nee nañ woon teral gan mu ne wa akrimil adyaafa bi tarxiibi wa bil qiraa wal bishri wa taqribi mu ne soo amee gan na ko teral te na welcome te na nga te na nga koy boole mbégte te na waxtaan te boo amee gal gan na nga ko ubbil sa dënn laa yastadiq li dayfi min kalkalkalu fa innahu amma qarib yarxalu mu ne soo amee gan bul xatal sa xol ci moom su laajee nga tontu tontu yu gàtt ngir bëgg mu ñibbee bi ñu waaye gan it bu mu baadoon misaal seeti ak couple boo xam ne day seetu nga toog fa rek waxtaan ba quatre heures de matin tooga toog bu gàtt ndox rek waaye bëgg faa toog léeg-léeg nga toog bañ noo ko faj rek <laughs> loolu it dina ma wala léeg-léeg nga toog bu mu jaay dégg waaye yaa ngi kon yaa ngi nelaw daal di bëgg a fellaatu ki ñuy gën a si tamit na am yaatu mu ne laa yastadiq mbir bàyyi fi mu kal kal kal mu xatal sax xul ngir gan bi ndax balaa yàgg mu dem mu ne mu dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafa wax sax ne ku gëm yàlla ak yonent bi teral gan nag ñetti fan la ñetti fan ak xam na waaw yoo xam ne da nga ko war a génne sauvage bi yoo xam ne daf da nga ko war a tàmbali après nag nga door a tàmbali wàññi sa kon boo amee gan démb waxoon nañ ci bu fekkee na gan bu fa war a amee fan la donc wutal nit baax moo tax buñ daan tabax bu njëkk kër yi bu ñu ko daan tabax dañuy am néeg boo xam ne néeg bu gàtt. mi ngi am ba léegi. ah léegi gerte léegi gën dañuy dëkk si de. waaw ñu ngi dëkk waaw comme ni wax. Thank you. Ginawa niya ngay ngay ngay ngay ngay kafamon dire tanang mo. Kung la soft dire wak tanang mo. Bumili sa dio to niyo. Agad agad. Fexel nak mu nekk bu ñëw ci yow. Faaw mu yóbbu. Fexel bu yóbbu nag yóbbu la lu baax. Gan bu ñëw ci yow daal bu demee nga lay tàkk. Waaye bu nga teggi. 嗯。 ndax avance bi nga wàññi danga am yeneen hmm. kon mu ne sàkku xam-xam nag ci lañ jëm mu ne bu mu am benn bis ci àdduna benn bis ci àdduna lu dul ne dooleeku nga ca xam-xam bu mu am benn bis ci àdduna lu dul ne bis booba dolleeku ga ca xam-xam te xam-xam ba ca dolleeku it na nga ko jëfe ban moo si jiitu mokkal alxuraan doonte day def mistère nga mokkal benn verse na nga ko def soo ko mënul ngir ne jàngoo alxuraan del déglu waaraate déglu rek déglu déglu soo mënta gëllu waaraate gëllu waaraate bu fekkee ni yow sa bëgg-bëgg seetaan la doona seetaan loo xam ne waaraate daf cee nekk ba ci film boo xam ne sax film boo bis xam ne doon di wóote dara ci xam-xam bis bu nekk na nga fexe ba doon lekk dara ci xam-xam te la nga xam ca bis ba it na nga ko tàmbalee jëkke ca bis ba ndax xam-xam day dundal ab xol xam-xam day dundal ab xol xam-xam day leeral a xol xam-xam day ban xol lay dundal xolub kii sàkku xam-xam day leeral ab xolam it te ni mu ni gumba gaay noonu la xam-xam mel ci xolub doomu aadama te mu ne na nga xam ne bu la kenn nax waa alam na nga xam ne nga am solo la na nga xam ne doomu aadama yëpp li ñuy rawantee di jiituwantee nga xam ne ci la ñuy compli ci la ñuy rawantee mooy tax ñuy jiituwante nee na mooy xam-xam ak diine nit ñi li ñuy gënante ak li ñuy rawantee nee na mooy xam-xam kii ëpp la xam-xam wala ëpp la diine gën la jikko ëpp la diine nee loolu mooy rawante ku la ëppale xam-xam bu jëm ci yàlla raw na la ku la gën a rafet la diine gën na la raw na la koo ëppale xam-xam raw nga ko koo ëppale diine raw nga ko ak fu mu mën di bokk ak foo mën di bokk koo ëppale xam-xam yaa ko raw koo ëppale diine yaa ko jiitu ku la ëppale xam-xam raw na la ku la ëppale diine jiitu na la ak fu ngeen man di bokk ndax sëriñ Tuubaa nee na ci ñoom ñaar la ak ngëneel mën a nekkante gënante gënante askan nee na amut gënante askan sëriñ Touba nee na dañ koo sos rek waaye amut dañ koo sos rek waaye sëriñ Touba nee na amut si diggante xam-xam ak diine ci la ngëneel di amee ndax lu mu ji lu mu jëfandikoo yaf lulu lay gënee man ka nga xam ne xadd fadala gën na alxuraan li mu wax ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ku la gën a ragal yàlla moo la gën mooy diine ji ko mooy diine ji mu ne ci ñoom ñaar ci la ak ngënante mën a nekkee waaye dënante mu ne nekkul ci gën a rafetoo askan maanaam bokk ngoo bokk fu baax taxul nga gën nee na Sëriñ Tuubaa nee laa binti saa bi man xadi otala Sëriñ Fàllu Mbàkke daf daan wax naan doomu diw ràkkal doomu diw ràkkal rek lañ ci xam comme ne ràkkal wala mu ne doomu diw fexe ba nuru diw ci niinaay moo ko gën xam nga diw la ko niin mu ne nga fexe ba nuru diw kon ci niinaay ah xam ngeen doomu diw mooy lan doomu diw sànni it's just somebody's child. That's somebody's child. Like they introduce you to somebody who knows in the public. Mm-hmm. Okay, you have to reflect the parent as he is is better than radials about nine months and about. Right? Don't do. I'm gonna do. du diw bu ñuy naan. mais wolof waaw am na ñu koy naan waaw. doon sa bàyyi doon sa bàyyi ko gën. arab sax day wax waa kay day wax ne. inna al fata man yaquluha ana daa wa laysa al fata man yaqulu kaana abi fata mooy nit waaye jàmbaar nee jàmbaar mooy ki fexe ba taxaw ne man maa def lii man maay naan man fexe ba am loo xam ne dañ la ciy xam. waaye nañ xamee woon sa baay rek nga nekk ca rek sama baay defoon nangam loolu du jàmbaar loolu yambare la waaye li ëpp solo mooy sa baay na meloon nga fexe ba téye ko ba du daanu wala nga yokk ko wala nga sos doole ci waaye bu dul woon sama baay yamba rek ko koy def waaw fekk sax la sa baay bàyyi woon bañ xam ko ca sax yow da nga koo bàyyi mu yàqu da koo bàyyi mu sànq mm. ba noppi bëgg dund ci barkeem Sëriñ Tuubaa nee na gënante nekkul ciw askan kii daa sant Jóob taxul mu gën sant Njaay ki sant Njaay gënul taxul mu nga sant Njaay rek ne ah yow maa la ndax Sénégal Njaay gaynde Njaay ah butti Njaay <laughs> dégg nga maanaam sa bopp ay déedéet comme misaal bu mel noonu rek dégg mu ne fan la ñuy gënantee ci xam-xam ak ci diine ndax nee na askan yépp boo ci toppee ñëpp ay mbokk lañ ndax ñoo bokk benn baay ak benn yaay te kooku mooy kan baay bi mooy aadama yaay bi mooy aw kon mu na nga góorgóor ci xam-xam ak diine Sëriñ Tuubaa nee na sooy wut xam-xam na nga sàkkoo dimbali ko ci yàlla te na nga sellal sa xol dana nga ñaan yàlla mu sellal sa xol dana amul dal dal dal wax na loolu booy sàkku xam-xam da na booy sàkku xam-xam na nga sàkkoo dimbali koo ci yàlla maanaam lépp loo tàmbalee jàng rek fexeel ba julli ñaar rakk ñaan yàlla mu dimbali la ci ba loolu sotti te mu mujj mujj barke daan ci mujj ga maanaam looy jàng li fekk yëggu rek mën nañu saa wax barke bi nga xam ne moom lañ bëgg ci ñaan te na nga sellal te na am xol bu dal te na nga dëkk nekk koo xam ne nag jamono bu ne say leçon maanaam li ngay jàng da nga cay nekk maanaam loo jàng rek bàyyi comme njàngum seen njàngum Amérique maanaam samedi ba samedi dimanche ba dimanche déedéet loolu baaxut loolu duñ jàng loolu duñ jàng moom dara moom lañ am nag dañ koy téye waaye duñ jàng waaye kiy jàng te xam ne njàng mi daf say bëgg a jariñ daf say nekk maanaam da ngay mel ni jën ci ndox rek tëmb ca rek toq ca rek nekk ca rek waaye bu fekkee ne boo jàngee ba dangaa laalaal jukki bi samedi baaxul waaw mm-hmm. yéen yàlla musal na leen si yéen ñu nekk fi macha allah mm-hmm. ah. waaye li ëpp ci xale dëkk bi moom samedi ba samedi te buñ tëbalee weekend rek mooy loolu suñ tëbalee ñaari weekend mu gën a mettee kon mu ne bu fekkee ne xam-xam bi ngay jàng da nga koy wër mu ne na bari looy takraar takraar mooy lan revising a lot bari looy takraar di jàng lu bari dégg nga maanaam xam ngeen xam ngeen ab leçon ñaata yoon lañ ko war war nañ koo jàng hundred times ak lu topp bu dee ab nafar nañ koo jàng fifty times minimum mu doy nga dolli yenn fifty times yes parce que alxuraan pour nga mokkal ko il faut li nga bëgg a mokkal da ngay jàng ba yëngu mokkal nga nga door a tàmbali jàng maanaam da nga koy jàng ba mokkal ko door a tàmbalee foofu njàng mi ne parce que alxuraan dafa bari ay yu nuroo ñaata yoon la yàlla di wax ci histoire Moussa ñu xaw a nuroo lool bari lool suratu Baqara rek li ci nekk ci ay runge kenn xamul nu mu toll wala léegi donc li muy gàtt gàtt am na runge fasan yasiru lil yusra fasan yasiru lil usra suratul Bayyina li muy gàtt gàtt am na runge لم يكن الذين كفروا من الابتاع والمشركين منفكين بون ما بس نيا على بن والمشركين وربا في نار جهنم نواد منفكين <laughs> القران دفع بريء ايوني موتاك بوي جان لين نك بوكا تامي نك بنين لول مولاي كوبل بنتي تي ينن خام خامي ليفري نغي لير بوكو بغي لير دي نكوي لير دي كو ليرا دي جيلي نوت دي بيب خيتو خام خام سورتو لو خامني دنجكو بغا موكال bu dee ay bayit yoo bëgg a mokkal da ngay yor kurus tàmbalee ko ci bopp ba ci bopp ba téeméeri per yi bu doyul nga doon. nag di ko répété. waaw di ko répété boo ko mokkalee ba pare. alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jaari fa yuxfara laki alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jaari fa yuxfara laki alayki bi sabri wa moom nga ko toppee di ko wérd di ko wérd ngir bëgg mu des ci mémoire soo noppee nga xam ni ñuy firi jéem a xam ni ñuy firi boo xamee ni ñuy firi nga jéem ko def waaw. ah anglais ba ci anglais sax xam-xam bi nga bëgg man bi ñu nekk keeb di jàng amoon na benn chinois boo xam man déggu ma ko de déggu ma ko déggu ma ko déggu waaye di mokal ay vocabulaire ay mufradaat baax na loolu ay mufradaat nii di ko moom di mokkal am na lu nekk ñoo doon lu jël daa am na yeneen yéen livre yi ñëw na ok xoolal ay mufradaat nii baax na lool même boo même boo mënta laaj del mokkal ay mufradaat yu bëri ay vocabulaire yu bëri day ko am même boo mënta làkk bu yàggee rek bis bu làkk di ñëw rek da doo ko tey ndax boo yàggee dégg nit ñi di wax rek nga xam ne ni ñuy làkkee incha allah Yeah, fix it. Fix your scarf. même anglais sax boo ko bëggee mokkal da nga koy jàng lu bari c'est leçon Sénégal da ngay gis koo xam ne day toog yor ab kayam di ko ni nga ko war a mokkalee du kii ndax lee boo xasee na la amatul loo say topp di nafaroo la dara jeex na waaye alxuraan moom même boo ko mokkalee keroog nga ca war a gën a ndax saa boo ko jàng rek yaa ngi gën di doon pour ci tuyaaba kon mu ne kon ñaar yooyu daal xam-xam ak diine nag ci góorgóorlu baax a baax te booy sàkk xam-xam nga dimbali ko yàlla te wa bi mu laa samati dara am te mu ne na nga continue na ngay jël leçon lu di jël leçon li yéen ak moom li yéen li ngeen gën a soxla da ngay jël leçon lu bari maanaam na ngay jël leçon te say leçon nay bari bul jël leçon bu gàtt boo ko mënee na jël leson bi continuer jël leçon jël leçon jël leçon te leçon yi di ko mokkal dégg te mu ne na ngay néew ay nelaw te di moytu suur ba rek suur këll comme mel na batu mu ne na ngay néew ay nelaw te moytu suur foo toll da suur doo xiif benn yoon waaw boo bëggee xam-xam da ngay moytu foo toll da lekk foo toll da suur na ko moytu waaw foo toll di lekk rek na ko moytu te li ngay jàng na nga koy naxar lu bari bu ko wan ginnaaw jàng dara ba noo fàtte noo jàng rek paquet boo ko def te boo bëggee xam-xam da ngay ak sa bakkan maanaam sa li bëgg bu ko ko jox ok te da ngay jàng exemple mais you always want to look pretty right that's not gonna work exemple rek bu tuuti mhm. ndax mu ne bakkan moom luy digal maanaam lu digal doomu aadama lu koy jariñ ñaare maanaam lu koy lor rek lu neex ci moom lu bul tàyyeel bul foo toog rek tëdd bu ko def bul tàyyi da nga sawar bi lay mu ne bul bëgg noflaay noflaay mooy bëgg relax ba mu ëpp def te mu ne say bëgg-bëgg na nga ko yemale bul bari ay minute ay wéchin hmm. nee na képp koo xam ne bi muy nekk xam-xam bi mu nekk gone dafa bañ a sàkku xam-xam su màggee faaw dana ko réccu képp koo xam ne bi muy nekk gone dafa bañ a sàkku xam-xam su màggee faaw dina ko dégg képp koo xam ne nag day sàkku xam-xam te njëkkantewul mel na ku gri di ci ñam ba gis ko ni muy def maanaam bu lekk du ko tey boo gisee xam-xam bëgg xam-xam maanaam da nga koy jël jëlinu foqale nga xam ne yow da nga koo bëgg comme ku gri ci dara te mu ne booy wut xam-xam it da fexe xam-xam di la yàqal yeneen waaye yeneen yi bu mu la yàqal xam-xam comme ni ngeen di def li ñu bari def xam-xam bi nga bëgg fexeel mu la yàqal yeneen mu programme waaye programme yi mu la yàqal sa xam-xam leer jox ay technique grave ne képp koo xam ne day sàkku xam-xam te fexewul ba jël xam-xam bi mu sàkku jiital ko teg ko ci kaw mun def ko prioritaire ba nga xam ne da koy mën a yàqal yeneen yi waaye yeneen yi duñ ko ko mën a yàqal moom mu ne ah du gaaw du yomb mu am li mu bëgg te nag boo góorgóorluwul ba nekk mag boo góorgóorluwul gaaw jàng ba nekk mag na xam ne boppu xale dugal ci xam-xam mi ngi mel ne am móol bu tooy móol brut bu tooy boo si bindee dara bu woowee nan lay def day def maam waaye nee boo demee ba nekk mag bëgg a jàng mi ngi mel na nga dem ba ci kawum ndox li ca bind Sëriñ Tuubaa nee na ndaw luy jàng waaye ndaw yi léegi dañooy suñu mag yi dem ñoom ndaw léegi dara mënut a dugg seen bopp ndax seen téléphone bi kàcc kàcc kàcc kàcc koo si ne am sa téléphone ma jël ko benn waxtu mu dof dof kaare naa leen mënuñoo jàng li daal foon xanaa ko mu ne sàkku xam-xam ci waxtu ndaw mi ngi mel ne nga fekk ab brique bu tooy wala ciment bu tooy nga bind ci su wawee daf des du dem ñu toll seen euh, waye xale yooyu ngeen mokkaloon ngeen di xale ba léegi man ngeen bu ngeen xale yi tàmbali rek ngeen mën a ànd ñoom. waaye mu ne boo demee ba nekk mag bëgg a jàng mi ngi mel ne nga dem ci kawam ndox SVT ba dem leen ci ndox ma ngeen bind. nothing's gonna be there mm. mu ne njàngu mag noonu la kon. foofii la ñuy yemale bindu tay bi. yu sax bu bari ay bëgg-bëgg bëgg-bëgg yu mel noonu like yu sax bari ay wish. ah bari ay wish ay bëgg-bëgg yu àdduna. yoo xam ne bokkut si programme njàng mi maanaam ah, dañ ne xam nga Serigne Touba dañu woon laa tashtaxi بالرزق إذ رب الورى متكفل رزق الذي يتعلم nee na booy jàng xam booy sàkku xam-xam bul yittewoo wërsëg wërsëg foofu alal lañ si jublu waxoon naa leen wërsëg dafa bari waxoon nañ waxoon naa leen xeetu wërsëg wërsëg dafa bari lépp wërsëg ba ci jotaay bi sax wërsëg la mu ne booy sàkku xam-xam bul soxla woo wërsëg ngir yàlla mi nga xam ne moo la bind moo garanteel nit kiy jàng ne xam-xamam du ko rëcc maanaam wërsëgam du ko rëcc yàlla day mel na daal daf ko dajalee wërsëgam di ko dencal fenn su noppee rek mu jox ko ko bul bari wish booy sàkku xam-xam mooy bari ay bëgg-bëgg yaa ngi jàng waaye lu ne yaa ko bëgg am lu ne yaa ko bëgg am loolu mënta nekk mënta nekk waaye nag ay bëgg-bëggi àdduna lañ lay bañal ngir lu la distract ci yoon bi nga parce que distracting mën na nekk boo xam ne raada weesa mais mën na nekk boo xam ne bu lay kar ci kanam la yaa ngi jàng am la distract ku def dara jàngatoo mais am na beneen façon boo xam ne doo ko gis ci kanam la lay yàqal day bañ ku la distract kon mu ne Bu bëgg dara lu dul li nga li nga nekk rek bëgg ko la ca des moom incha day dikk moom waaw day dikk xéewal day dikk soobee yàlla from that